assalamualaikum may ziar ñep di ñep euh di ziar di jéggul bu baax a baax baax di wax ni tay dañu ñëw fi passé fi yëmbal euh pour def caravane ak ñom depuis suba nak ñom commencé nak depuis suba man ma tardé dama néwon ci yenen yeneen waar bon di wax ni euh sen télé ci posté dafa ñëw fi passé fi yëmbal yëmbal nord hein ah, c'est très parce que keroog yëmbal sud lañ nékkon bi yëmbal nord la parce que ñëpp xam nañ banlieue bi rôle du man ma koy wax à chaque fois ma wax ni banlieue bi dafa am rôle bu am solo bo xam ne té ñom xam nañ ko ñom les politiques moo tax instant yi ñu ngi rey seen bopp fii té yaaka na ko lo la wul pendant 7 ans lo wax mu indi la alkaati ak gendarmerie bu voté joté gendarmerie la war wax ñu dugg ci kër yi dóoraate pour ñu voté leen su ko mënul def mu bayyi mu baña sonal nit ñi les banlieue bi nak li am solo mooy ay yëmbal caaro yi yëmbal nord yëmbal sud c'est-à-dire manam banlieue bi ku ñu voté yow yaay gagné élection donc kon ñoom dañu war dañu leen war a respecté leen quoi léegi nak comme candidat yi fi nek yëpp am na si ñoo xam mus nañu ñam nguur lan lañ defal banlieue bi loolu ngeen di xol ba paré donc léegi nak dañu dañ ñëw fii tey Pastef Pastef Pastef euh, yëmbal nord siège bi lañ nek ni Euh, comme ni ngeen ko gisee léegi dama ñëw fekk sama gars yi ñoom soo léegi ñu ngi si waar wi nag ah di dóor ñoom am nitu dëgg gars yi ñu ngi fi ak sisters yeeg ñëpp incha allah xam naa nañu may ay quelque ku nekk nañu may ay quelque baat yu sew ñu commencé na aussi yeggali caravane bi dox def proximité dugg kër par kër wax leen kan mooy président Ousmane Sonko lan moo tax ñu def choix Ousmane Sonko euh, lan moo ko utale ak yeneen candidat yi lan mooy programme am donc lolu bokk ci li devoir la ñun taxul def Sénégal c'est-à-dire Sénégal nitu proximité porte à porte wala am nga ci valeur mhm. donc sa di sa di ci dérangement affaire occupé mhm. bëri programme mais macha allah dagg nga lépp parce que patriote nga Sénégal moo la ñor xam nga lépp moo la lépp moo la ko jaral donc xam nga ñu lay dalal jàmm ci biir yëmbal mm. comme ni nga ko waxee rek noonu la ñun dañoo jóg jaayante xam nga kenn jox ñu dërëm kenn jox ñu fukki dërëm xam nga jaay programme Ousmane Sonko parce que moom tamit dafa ñëw indi loo xamante ni lu bees la révolution bees boo xamante ne bi sénégalais yi xamuñu ko woon xam nga donc mosuñu miin lu mel noonu xam nga muy lu bees tax léegi nag jeunesse bi yëpp jóg demoon nañ ba ñëpp découragé xam nga ñëpp teewoon seen seen seen loxo ci politiciens yi mais instant yi moom ñëwaat na tekki loolu joxaat ñu espoir donc moo waral lii yëpp ñun ñëpp ñu bàyyi suñu activité yëpp bàyyi suñu yite yëpp ñëw teew fii xam nga fas yéene ñëw ànd ak waa yëmbal ànd ak banlieue bi yëpp dugg ci biir koñoo koñ ruqoo ruqoo wax gaay xam nga kan mooy Ousmane Sonko ak xam nga mooy loolu daal mais Karim yoo ñu ngi lay jaajëfal sa teewaay mais waxal gars yi ma wax gars kii am li ngeen gis internet bi yëpp am moo ko def lépp gis nga nitu dëgg li ngeen gis yëpp am moo koy liggéey ki mooy am nitu dëgg ah très très important salaamaaleykum sant bu baax ça va bien donc euh, Ibrahima Diop Ibrahima Diop donc euh, membre Pastef Yeumbeul donc euh, comme vous le voyez ñu ngi fii tey yëmbal ASECNA euh, comme dab rek euh, di def suñu VAD di ko continuer mhm. def suñu séance de sensibilisation ak population yi mhm. donc loolu moo ñu indi fii tay donc di rafetlu sa taxawaay ak jàpp bi ngay jàpp ci affaire bi bon ñu ngi koy gis ñu ngi gis vidéo yi mu nekk affaire bu nice ñu gis ne donc vrai patriote nga donc xanaa di wax waa ASECNA rek de leen sensibiliser davantage parce que démb sax jaar nañ fi ak caravane. mais dañuy ñëwaat lu tax choix wu Pastef lu tax ngeen choisir Pastef lan la. Pastef boo boo xoolee ñun fi politiques ci bëri ñoo def politique nous sommes novices en politique. parce que tout simplement dañoo gis benn vision bu claire bu wuteeg li ñu daan gis. nous tax ñun ñu man euh, j'ai observé deux ans Ousmane Sonko di quoi xool di ko jàng ma xam y a une différence nette par rapport ak ñun li ñu moi donc nous ñu adhéré wu ci Pastef loolu mooy ñu ci donc il est compétent donc euh, jub na ba vision ba pare bëgg Sénégal loolu ce ñu ne jot Sénégal donc après plus de 50 ans d'indépendance nous vivons la même galère jot na pour loolu dañ tey moo ñu gis c'est le seul candidat capable de sortir les Sénégalais de l'ornière capable que de faire de sorte que les Sénégalais puissent donc retrouver une bouffée d'air moo tax ñu à dañuy adhérer ci vision taxaw ci jàppale ko le suñu parce que du sommes euh, la personne du euh, euh, mu mu falu du moom du euh, quoi je pense que sénégalais yi souffrir surtout personnes yi gën vulnérables le, euh, la les les banlieues ñoo gën a voilà les filles voilà les banlieues il banlieue y a rien du tout donc si vous avez une politique une vision je pense que vous adhéré parce que on a besoin véritablement que Sénégal mën a teg ay parce que si vous bu un Sénégal ay réew yi nga donc nous, ñoo dépassé woon ay Rwanda nga xam génocide vous fa amoon mu sur le plan économique être un tax xoolaat suñu bopp et responsabilité d'une population bi la war population nous, ñun ñooy fal les mêmes politiciens ñuy def les mêmes choses donc d'autres ne pour tey dire...

à ce que vraiment nous votons pour Sonko non seulement mais aussi le jour où nous gagnons voter massivement. donc vraiment euh, journée objectif vraiment pour rencontrer euh, les populations de Bayal. donc vraiment pour nous voir ak nous, leader. programme ambition bi aussi donc vraiment donc objectif voilà ok waaw salaamaaleykum man maa leen di sant di leen gërëm euh, Sadia Bodian laa tudd man maay euh, responsable cellule Yeumbeul Asegna di vraiment di woo ñëpp en fait pour ñu ñëw si massification bi ñu nekkee nii parce que en dama jàpp ni euh, Pastef moom ku si nekk rek lépp ci li nga nekk li nga ne li nga xam ne moom nga nekk rek di ci yëngu rek man damay jàpp ni jaamu yàlla la jaamu yàlla boo fan laa ko teg moom mooy maanaam tey képp ku nekk Pastef da nga jóg en pour liggéeyal sa askan da nga jóg en fait pour jëlaat sa réew parce que ñun tey dañoo gis ni réew mi ñun moomatuñ ko lépp loo xam ne en fait ñun mu ngi fii mu nekk suñuy ressource vraiment ñun moomatuñ ko loolu lañ bëgg jëlaat nag tey te pour ñu jëlaat ko il faut vraiment ku nekk jóg taxaw taxaw bi sax du du du du doon loo xam ne en fait moom mooy li doy mais il faut ñu ànd ak nit koo xam ne vraiment dafa am yërmande si réew mi moom mooy Ousmane dañoo jàpp ni nii

kenn xamul yàlla lu muy dogal mun naa am ñu bañ ko fekkee mais li ma dund man démb vraiment bugguma samay doom bugguma sama njaboot vraiment ñu dund ko li nga xam ne sama papa dundoon na ko démb vraiment bëgguma mën ma dund ko te bëgguma samay doom dund ko looloo tax tey ñu nekk ci xeex bi vraiment pour jëlaat suñu réew mën ko liggéey mais aussi nañ ko jox nit koo xam ne nit ko dëggu la nit ku jub la moom mooy Ousmane Sonko vraiment ñu leen di remercier yéen ñëpp. jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi. maaleykum salaam. maaleykum ñëw ànd ak suñu càmmiñ yi pour euh, ma ne dañ ñëw ànd ak suñu càmmiñ yi pour mën a wàcc ci terrain bi gën a xam nga

sacrifier njabootam sacrifier boppam ba sénégalais yi sénégalais waruñu ko waruñu ko moom waruñoo gën a gore quoi loolu doo nga tax ñu bàyyi suñu yitte ñu wàcc ci terrain bi nekkoon carrément yow doo ñu gën a gore dinañ liggéey ba jox la réew mi incha allah li nga xam ne moom lañ bëgg yaakaar ko pour suñuy doom suñuy sët ah de ce fait li nga xamante ne jot nañu rëcc ci 60 yi ñu mën ko rattraper te incha allah gëm naa ne au soir du 24

rek Sénégal dafa wara changer dafa wara a benen Sénégal bu dul bii tey ñun gëm nañu Ousmane Sonko buñ ko joxé bopp réew mi parce que dañ ko sentu ci moom daf ñëw daf ñëw woon loolu parce que ñu bari jaar na ci bo waxé banlieue ñu naan banlieue ay mbeureuf yu bëri ay mbeureuf yu bëri wala ay xalé nga xamné amuñu ay compétences ak yoyu ay intellectuel pourtant ñoo ngi fii ñoo ngi fi am pagay motax na ñu xam ñun buñu jappalé Ousmane Sonko euh, banlieue bi day dem té bu inshallah day dem confiance tax ñu des ni mo am nañ yaakaar ci mo jaajëf oui Seydou sama tur Baylo Diallo la. waaw en fait man may wax tous les jours euh, ak yeneen gars yi may nekkal rek dama naan tous les jours ñun personne Ousmane Sonko intéressé wuñu Ousmane Sonko si boppam intéressé wuñu quoi li ñu que Sénégal changé ñu am président bu baax boo xam ne dañ si mën gis suñu bopp quoi. Mm-hmm. parce que mënuñu wax depuis année 60 mënuñu nekk euh, si même système boo xam ne mënuñu moom suñu bopp quoi à ce phare yi nekk xam si dañu nekk ci si moment boo xam ne dañuy tourner autour quoi. tu vois et ça la mooy suñu message di wax rek ñun Ousmane Sonko dañoo fekk si partenaire bu ñu nekk quoi te maak moom dañuy xeex rek pour Sénégal pour suñu famille pour ñëpp ñëpp gis comme ni ñu koy waxee rek li ñëpp bokk ñëpp jot si quoi waa di ñaanal gars yi ak waa Pastef yomal noonu yëpp quoi di wax yàlla yàlla def jàmm waaw je pense que ñoo ko déggandoo dañuy ñëw fii pour euh, pour pour nek après dañuy proximité bi porte à porte ak yoy yëpp inshallah rabbi da ngeen siste yi da ngeen Nord bon ñom commencé won nañ depuis ci suba légui instant euh, préparé la euh, proximité yi porte à porte kër kër xam nga mbagg ak mbagg ak tank ñu top ko fexé ni def ba sénégalais yi comprendre bu baaxa baax que banlieue bi néna Sonko le choisir que banlieue bi ñom ñëpp na wax ñom ñëpp choisir nañ né dafa jot ñu bay utiliser bu ñu leen utiliser quoi ñu candidat bo xam ne xam nañ ni ki intérêt Sénégal moko ko ñor njëriñu Sénégal moko ñor te xam nañ ñoom ban nan la pays ci électorat bi xam nañ ko donc mo tax ñu ñu taxaw fas entreprise ànd Sonko donc c'est très clair Karim Gueye fi ci Pastef yëmbal noor euh, ndax ndax ñu top affaire coalition Sonko 2019 waaw ah, ok Pastef yëmbal nord coalition Sonko 2019 euh ñu wax hein

asalaamaaleykum jërëjëf ñu ngi ziar na ko waat jaajëf waay na ngay dégg jaajëf tur bi naka la tur bi Fallou Fallou Fallou naka Fallou Ndiéwé Fallou loo xam lan nga am message booy lancé si Sonko lan nga gisee Sonko Sonko moom gaañ na waaw yow ñun ñëpp ñu ngi si ginnaawam xam nga ko baax Sonko hmm. xaw ma ko baax li muy wax li nit ñi di wax nii doy na ma si moom quoi waaw li may ñaan mooy Macky Sall gi na ba jour élection yi photo mi moom ko ma Macky Sall mi yëpp mbalit la jëm incha allah bari leer la jarama salaamaaleykum yaa booy na nga def yaa booy xam nga xam nga xam nga Sonko ah, Sonko de dama kaa dégg rek wax dëgg yàlla yow maa ngi mel ni yaakaar si moom ah wax dëgg yàlla am naa yaakaar si moom lan moo tax nga am yaakaar si moom amiin amiin amiin waaw loolu daal lañ koy ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaar bu yàlla commencé ñu jaar kii bi mooy mooy fay moo tax am na day fay day fay bu ndaw bi non non yow maa am banque banque waaw waaw sama gars yi comme ni ngeen ko gisee rek xam nga noonu la demee vite maa ngi jégalu nag quoi dama problème mu euh, euh, dama am problème mu du moins euh, charge xam nga rek yow ma gën a xam mais maa ngi def sama kéem tolluwaay kàttan di jéem a taxale ak gars yi mais juste pour proximité bi ñu def ko par par salaamaaleykum. grand na ngeen def. du ñëpp ñoo bëgg ñu souvent ñu leen di filmer quoi dañ doon def ay proximité rek porte à porte. waaw léegi non dañuy doon waxtaan ak yéen rek population bi comme tey dañuy sensibiliser nit ñi. kër bi nga woon def nañ leen ne ni kan mooy Ousmane Sonko dèjà wax moo tax le choix porté sur Ousmane Sonko ci ñi nga xamante ni nekk na ko pendant 15 ans inspecteur des impôts te mosuñu ko jiw benn kërëm bu mu bu mu rënd bu ñu jugee ci loolu ñu naan député à assemblée nationale te gëm naa ne taxawaay bi mu am ci assemblée nationale moo tax ba suñu papa yeeg yaay yi commencé seetaan séance plénière yi ndax lépp luy nga xamante ni loi la wala budget boo xamante ni Sénégal gisu ci njëriñam Ousmane Sonko taxaw na xeex pour lan pour rien que alalu askan bi wala njëriñu askan bi ñu jëm ko conforté bu ñu bu jugee ci loolu sur l'homme mun nañu waxtaan ci programme Ousmane Sonko je pense que c'est le seul tay bu taxaw ñu ne wax lu bëri ci li xamante ni moom mooy ci contrat yi jël na alal tayle ko wala may ko tubaab bi ci jaarale ko ci rakku président yaa booy na def. ça va ñun la waa kër Sonko. Ousmane Sonko dañu ñëwoon waxtaan ak yow tuuti rek. boo hanya ne dañu am candidat boo xamante dapat dafa set musul bokk ci benn benn njuuj njaaj benn labaj fexe bu nekk ñu ngi ko def mu ne dafa bëgg doomu réew mi lii moom réew mi moom waa réew mi jëriñoo ko ñun nag ñu bëggoon ànd ak moom ñun ñëpp moom ndaw la ñun ay ndaw lañ parce que waxtaan na ñëpp ñu ànd fal ko xool ko bu baax a baax a baax mooy kii mooy Ousmane Sonko kii mooy Ousmane Sonko Sénégal bi nga patriote la patriote day def te rek tax muy jëriñ réew ndax yonente moo wax xubu watu iman gëm te réew ci jàmm yàlla la ci gëm gëm donc loolu nag moo tax ñun ñëpp ñu ànd ñun ñëpp ay ndaw lañu parce que leeral Sénégalais kan mooy président Ousmane Sonko waaw tey nañu fekk sonn na fi la ziar di wax na nga ko bàyyi xel ba fekkee mën nga ko bàyyi xel ci télé bi wala foo ko mën a bàyyi xel rek nga déglu baax discours am ndax li mu wax ci diine li mu wax ci respecté li nga xam mooy njàngu xale yi li mu wax ci respecté li nga xamante ni mooy mbayu Sénégal intérêt Sénégal ressources minières yi Sénégal am na or am na pétrole am na zircon am na lu nekk loolu yep nak ñun mënuñu fex ba jëriñoo di depuis at yu yag yag lepp nak nag France français lañ ko jox léegi France yoy nak mom dafa ni loolu dañ ko wara dindi mu jeex mo tax ñun ñep kenn jox ñu juróomi dërëm fukki dërëm jox fukk dërëm jox ñu ñu ko ñu and jël fukk jël li ñu yor nak ku sukti 1 franc jox ñu ñu ko da ñun ñep suñu bop lañ dox ñew fi passé suñu bop pour leeral ni ki kat jëriñu intérêt Sénégal la pour xalé bu ndaw bi nga xam suba mom na mëna a lool pour jigen bi nampal suñu papa bi nekk tool di bay ak képp ku mënti do lool mo waral suñu taxaway yaay bu maa lay ziar bu baax xoolal kii mooy Sonko yaay bu ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf. j'espère que ni nga voté. jërëjëf waaw ah, voté ko rek yaa ngi koy. jërëjëf kii mooy soppeeku sax kii bi sànni noonu portable portatif waaw. waaw dama ko xoolal bu tey rek papa maa ngi sama gars maa ngi ziar ma ngeen def nag lépp jàmm lépp jàmm na ah waaw dama ñëwoon waxtaan ak yéen si wàllu patriotisme quoi ci wàllu élection présidentielle yi xam ngeen élection yi jege si xam ngeen Ousmane Sonko ñun xam ngeen ñun moom boo ñu xoolee xam ne kenn joxuñ dara mais pour intérêt Sénégal rek moo tax ñu koy def te jeunesse bi yëpp Ousmane Sonko la ñu wax parce que parce que intérêt Sénégal moo ko tax a jóg bon ñu bëggoon na ngeen bàyyi ko xel a baax quoi ci côté discours jaa ngeen jëf waay jaajëf ay ci ñëw taxaw na sant fi léegi léegi quoi ma benn mariage mën a xaama jaar fi quoi maa ngi dëkk Kër Moussa Boun bon man dama naan ah, Ousmane Sonko benn mbir la benn mbir la bu yàlla may senegal mais sénégalais xamuñu ko te buñ dof dof la ba Ousmane Sonko rëccuñu mooy ñàkk nañu li may wax ni man politique ma xaw ma luy politique lijjanti ma ko mais dinaa lu liggéey ndax gis naa ko am dafa ñëw pour jàppale ñu Ousmane Sonko li muy xeex yëpp xeexoon ndax intérêt personnel am ndax ñu ñoo ngi koy gis kenn jox ñu dërëm pour ñu wax ba ña fekk si wala man maa la fekk dëkk bi ñëw ne Ousmane Sonko am moom wasoo def benn moyen ndax li mu ñëw prôné li mu ñëw pour dafa ko réew mi gisuñu kenn ko ko fi def boo déggee ñee seeni programme ak li ñuy waxee jàppale kon koo xam ne neexul moom yaa war a xool lii arrangé na Sénégal ma jox soom ci Omar Sarr laa droit merci beaucoup bayal rek après bu dóoree benn kii rek mun na mun na mun na mun na ji bi quoi mun na seey quoi jarul muy yàgg quoi moom parce que day yàgg waaw bàyyi rek ma su may am lu tudd dëgg sama gars dégg naa gars yi day ñëw le 2 décembre de. waaw dama woon jox benn flyer comme ça nga préparé ko quoi le 2 décembre.